dajale woon tey mooy lancé benn entité wu mouvement bu le président Talla la sos mu tudd jàmm gën ci biir jàmm gën mu am pàcc bu mu jagleel jigéen ñi di pàcc bu ama am solo ñu ko doon lancé tey muy jigéen jàmm jigéen jàmm nag su ngeen ko déggee dafa nekk benn entité boo xam ne dafay saytu wante dafay suuxat jàmm ji te bëgg ko lawal euh, tamit kon loolu la président Talla laa ne na ko jigéen ñi taxawee

li nga bëgg sa morom defal la ko defal ko ko su ñu jógee ci lancement bi dañuy def li ñuy wax doxu jàmm dinañu dem ci kilifa diine yi kilifa aada yi euh, poli kilifa politique yi ak ñëpp bu ñu jógee sa lool nag ñu ngi jëm si li ñuy oowee université de la paix mu nar yaatu lool ñëpp nar ci bokk ñuy sant di gërëm monsieur le président Macky Sall di gërëm la première dame Marième Faye Sall waaye di gërëm jigéen ñi nga xamante ne ni jógee nañ ci quatorze régions du Sénégal

kon aussi bu nit pour imposer fitna ci Sénégal nañu pare pour imposer jàmm ci Sénégal loolu mooy dëgg politique politique Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum da daan wax ne bu ñu ko nàmpalee ci weenu caaxaan bu màggee sàcc waaw dafa ni politique bu ñu ko nàmpalee ci weenu caaxaan nee bu màggee ku ne droit politique ku ne am droit am la politique Sénégal yag nañu def ay élection muy am ay candidat avant élection yi coow li da daan cour ñi naan code électoral ñi naan accès aux médias d'état ñi naan nangam nangam nangam mais fu muy mujj jàmm dara du fi xew pourquoi parce que saa yu n'aré dara n'aré xew Sénégal dafa may kilifa dañuy jog taxaw daw bi mbir yi bëggee yëngu daw jek kilifa yi ñoo jog taxaw ne na fi yem te dafa yem nag maintenant askan wi ci boppam comme bu dara dee yàqu ñoom ñooy yàqule ak parti bu ñu mën ci bokk ñoo war a taxaw ne fii ci senegal jàmm rek a fi am ngir lan ngir jàmm gën.